xam ne action bii du président Macky Sall moom képp moo koy defal boppam wala ay partem ca xam ne waa sénégalais yi ñoo ko moom Sénégal bu setee sénégalais yi la setal rawatina dëkk bii nga xam ne mooy Touba ci amuñu lu dul moom. comme ni ko ñëpp defee ndax président lancé na ko gis nañ ko mën nañ ne ñun waa Touba fekkoon nañu ci parce que ku xam Touba xam ne dëkk la boo xam ne chaque jeudi femmes yi ñu ngi nettoyé chaque vendredi association yi ñu ngi nettoyé kon suñ ñëwee fekk si leen si dañ leen di dooleel si loolu mu gëna a set ñu and ak ñom comme niko président défé ñu défé ko ci région yépp ci 14 régions yépp mi président de la république santané avant mu koy def soccet mom bañ naan jatu len fekk nako mu jatu ndax ñun Touba ku ñu xam xam nañu xam ñu ci balé problème biñ ñu moy dépôt sauvage lañ amul won euh, fuñ koy yóbbuwaat mo nekkoon suñu problème waye balé du suñu problème ñom ay kilifa lañ yo xam ci ni jël nañ initiative jël président bi mu jëlé initiative bi ñu ko ci accompagner mais également fekk nañ nak ndawi Touba ak jigéeni Touba doon def lu ni mel chaque jeudi ci wër wi yépp kon yaakaar naa ni buñ ci dolé waté samedi li ni lu rafet la. walu sétal la sétal nak ku ko dégg xamni yeufu l'islam la l'islam ñepp xam ni lu jëm ci se fekk setoo mënoo koo mënoo koo dundal.

président Macky Sall bëgg nañ ko waaye nag wax dëgg yàlla daf leen war dooleel man samay kàddu foofu rek laa koy teg. may interpeller waa lànk ñoo lànk ñoo bañ di leen wax ne li ñuy xeex peut-être ñoom lu baax la seen gis-gis mais lii lu baax la lan moo tax duñ leen ci gis. am réew bu ne réew mi moo la ñor bu ñu wootee lu boo amee lu la naqari nga taxaw ñaxtu bu lu baax ñëwee dañ la cee war a séen. kon nag loolu nun góor ñi itam dañoo war a fexe bay def nañ jigéen ñi def buñ ko defee dëkk bi dana set ndax kenn ku ne boo xëyee da nga sa sa néeg da nga setal sa sa kon nak nonu jigen ñi def di daayira set setal yi ak ñi nga xamni ci ño fi nekk euh, di di projet bi nga xamni bis bo xey ya nga leen gis ñun joge ci juma ja di ko nettoyer ba dara du fi rot lolu bu ñepp jappé ne kenn ku ne set gi yow la war tak du am nañ fexé ba soppi euh, japp ne da ngay takal rek nit dafa wara ñew diko di ko setal da yow fété wo lu may takal lolu nañ ko bayyi bu kenn ku ne bëgg setal nak dara set lolu nak noo ngi ci sant ñepp tay ñaan ñepp ñu fasiyene mbalit mii nii mu def ci garage bi mu bañati koo def kenn ku ne doon sa sàmm bopp ku gis loo xam ne si yaa ngi teg loo xam ne si waroo koo teg nga jóg lala ca war nga def ko ci tere ko bul la taa am na keneen ku la yilif nga dem jaari ci moom defe naa ne suñ ko defee daal ah lu mel nii dootu fi am. kon bu yàlla defee maanaan ci baaxu sëñ Tuubaa ndimbal loolee sëriñ bi dimbali nu muy dem ba ki jiite réew mi am xalaat boobu eh, yaatal ko ñëpp bokk ci. yéesu nag ndax nii nuy waxee ci tur sëriñ bi noonu lañ koy defee it ci euh, turu comité d'organisation màggal te sëriñ Ousmane Mbacké di kilifa gi nu féete ci commission assainissement ànd ak ñoom ci seetal dëkk waaye ànd ceeg mur yëpp nag at mu ne bu màggal jege danañ ko def bu màggal weesoo danañ ko def waaye bu boobaa ci ndigalu sëriñ bi maire da ciy jàpp kem kattanam sëriñ bi yëkkati àllam def ci def ci ay ñaanam Cheikh Abdou mi ak ñi melni mom ñep di ñëwul sëriñ bi dañ ci def seen loxo and ak noonu bu re ci walu commune bi man nañ ci wax ndax tank conseil municipal nek commission environnement Cheikh Abdou mi jité ko kon batay tey day dal wat ci euh, koñ bo xamné ne ñu sëriñ bi lo ñaari koñ yu bu ci nek war nañ ci wax ne bu ñu xam nañ ci lu leer te gis nañ nit manana résultat biñ ci am waye gis nañ résultat biñ ci am nak bi ci ëpp solo nga xamné ci diggante màggal ak buñ màggalee ba noppi la murid yëpp di ànd waaye Touba mooy dëkk boo xam ne lii fi président woote ndimbal la ci ñi nga xam ne baaxoo nañ koo def wutal ko ay bis. objectif bi nag ah, mën naa wax ni mënuñu ma mënu ma wax ne atteindre nañ ko mën mu wax ni tey tey tey atteindre nañu objectif parce que dañuy door objectif bi ñu ngi koy atteindre bu ma mënee yàlla ma ñu ñu dund ba teewewaat. ba ñëwaat fi si gare routière bi ñu joxaat ko benn bës ñu ne tey jii dañu ñëwaat si gare routière bi pour set setal ko bu ñu fi ñëwaatee fekkaat fii lii ñu fi jëlee tey jii kon saa veut dire que demaguñu de waxtaan wa dëgg kon demaguñu ndax di bu fekkee ni su fukki bukki mi ngi gas fukki bukki di suul yaakaar naa ne foofu pax du fa am kon ñu ngi mën a kii suñu objectif xayma ko bu ñu fi yàlla mayee ñu dellu si waat fii ñu ne tey ji gaaru teer bi la ñuy demaat xool. Mhm. ñu ñëw ñu ne ah tey de liñ fi bale sax daanaka tuuti la di. bu boobaa dañu ne ah kon de ñu ngi tegu si yoon bi.